Mhm. kon wa du'aabatul aqraani di kafantu ak say morom aqraan mooy jamoo xirin xariin mooy àndandoor du'aabatu mooy kafantu al aqraani ak say morom waxtaan guddi baag même ci Skype bi même ci Facebook bi toog di waxtaan ak say morom foofu anatu laka moo la gën a man a wettali min tilaawatul Qur'aan toog di jàng al Qur'aan te bari na léegi de bu dégg bëccëg ñu ngi ci rek ñu ngi ci seen xarit yi di waxtaan ak di nga discuter rek te alquran moom duñ toog di koy jàng taamur yaa ngay digle bil urfi lu baax waaye nag wa tantahiku yaay njëkk a uññi himaahu ngëddam doo ko def wa tax mi yaa ngay tere nit ñi ani nukri lu bon wala tataxaama waaye yow doo ko moytu wa tuzahzu yaa ngay puuf nit ñi ani zulmi ci tooñ ma tax shaahu te yaa ngi dugg ci tooñ wa tax shan naas yaa ngi ragal nit ñi wallahu te yàlla a xaq moo gën a yelloo an tax shaahu nga ragal ko de su ma anshada ci biir loolu nag la daldi woy he alhamdulillah su ma anshada mu ne ci la daldi woy nag yi di ñëw li taalibi duniyan sana ilayhan sibaba ma yastafiqu garaman biha wa falata sababa cey wala dara la kafaahu mimma yarumu subaba tabban na jëm côté li taalibi dunyan kay sako adduna tabban nag saaga la saaga la moo tax yéeféer wala abu ja abu lahabin saasaay la parce que tax nañ ba yàlla di saaga yàlla moo ko ñëw wax tabbat yadaa fokkin yu yàlla ko xoolal yàlla rek ak bi mu toll <laughs> dem de boobu boo tax ko wax nit de waaw xanaa ko mën a dóor nga man ko ko wax waaw tabban kooku ci saa fi la bokk na jaar quoi mu ne tabban na dem fee mooy perte li taalibi duniyan ka nga xamante ne mooy sakku àdduna sanaa mu daldi delloo ilayha ca àdduna insi baaba lépp luy xeetu mbugeelam insi baabahu mooy mbugeelam wala insi baabahu jittiyam yépp mu sotti ko fa maa yastafiqu du ximmande ko xaraaman ngir mbugeel biha bugg ba mbugg àdduna wa farta ak na mu jege daya sababa na mbugge àdduna e walaw dara bu xamoon la kafaahu dina ko doon doy su baabatan benn somp rek benn guux min ma yarumu ci la mu ci àdduna doy na waay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax xafi xafi xafifan xaabi lekk ba suur am loo solo am foofu fanaan doy na waay waaye di boole rek di jajale amul solo mu ne boo ko xamoon lu tuuti rek dana la doy moo tax yonent bi wax ko mu ne loo fi mën a am yomal kaam da nga rëccu ne bu ma ko amoon du ma ko xam du ma ko bu ma ko